bisimilah rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki taalibe yi ñu leen nuyu yéen ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu Cheikh Mamadou Mountakha moo nu yónniwaat am nuyoo bu jëm ci mbokki taalibe yi lépp di ànd ak cant ak ngërëm ak di leeral rek ndax xam gi mu xam yittewoo ngeen yittewoo ànd ak moom liggéey Sëriñ Tuubaa bi moo tax fu ci mën a toll yitam muy leeral toll wi rek bëgg ñu bokk fa toll ndax xam na ne ni ma koy waxee rek moom liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek ko ñor waaye yéen itam ànd ak moom liggéeyal Sëriñ Tuubaa bi rek leen ñor moo tax na loolu kon ak cant ak ngërëm la leen ci amee waxtu wu nekk fa mu toll itam di leen wax fa mu toll bëgg nu ànde ko noonu ndax mu gën a yomb ci noonu ñaareel bi daanay wax ne bu sañoon taalibe jógee ngir Sëriñ Tuubaa te di seet Sëriñ Tuubaa ci moom ñëwee dana ko mën a gis ñu saafoonte jàkkaarloo waxtaan kon boo amee bis yoo xam ne yenn soppi ko da cay am lu mu néew néew rek dana ko bëgg a xamle ba nit ñi xam na ñuy doxee ci loola nekkee tey jii rek bokk na ci bis yi nga xam ne muy altine ji nu nekk yu mu daan nuyoo la te nuyoowu ko ndax ay teq-teq yu ndaw yi mu amoon ci kër ga ba loolu yóbbuwante woon na di ko jéggalu ci taalib yi jot a ñëw tey gisuñu ko mu doon leeralaat rek lii ci sunu kanam ni ñu ko bëgg a doxalee mooy suba ci talaata ji ak àllarba ji mu nga daaru minam waaye alxames ji moom da ko bëgg ubbi nam daan ubbee ubbi bu yaatu boo xam ne ku fa ñëw dangay ngay fukk nga koy fekk ni mu waree nu ubbee ci kër Sëñ Tuubaa mu ubbee ko noonu alxames ci daaru minam bu ajjuma jaay nag bu jullee ajjuma ba noppi ñëw kër Sëñ Tuubaa nag fas yéene màggal si nekk ndoog yéen taalibe yi ci màggal gi yëpp ba màggal gi jàll incha allahu nañ ko daan defe ñu defe ko ni ndax rek la bëggoon ñu leeral ko ñaari fan yi ma nga daaru minam buñ ko maye mu noppaloo ko am yitte ju jàmp nga ñëw alxames yi nag moom dana ko génn ubbi ko di saafonte ak yéen xam naa waxtu yi mu daan génn fi tàmbalee une heure ba trois heures jëm quatre heures waaye ñu bàyyi xel ci ne quatre heures nag ci la président di ñëw kan quatre heures jëm ngoon jégal ko nu yooyu ba jumaa nag mu ñëw kër sëñ Tuubaa gi jumaa ji màggal si nekkandoo fekk yéen ba màggal gi jàll incha allah loolu la woon jot leen ko di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah